ci moom lépp lu ma doon def dinaa ko dagg téye ci loxoom indi ko bi ci yow. maaleykum salaam. waaw Nabou. wàcc nga. Diop. ah. Seynabou. Diop. Ah, na nga def. waaw. papa ah, ah, tey lii sa rafet na de. waaw <laughs> yow <laughs> waaw xam nga rek. maa ngi toll fii dégg la ngay xuloo rek sama yaay. te war ngaa sañ di xuloo yow xuloo waaw ah, du ma mos a xuloo sa yaay sa yaay ji at maam moom ñu yàgg ndax xanaa sa guddee wàcce gi rek lañ doon wax. dëgg la maa ngi ci biir laa ilaaha illallah lii de ku ma ko waxoon maam wax fa dëgg yàlla ma weddi kii du sëy na ki ma gisoon ah, kooku sëy na bu la waaye bu ma jaaxal. li nga fi def tey moom bu mu amati ñëw fi di ma teer si ne na bu ay daggit la sol day ànd ak ñu bon. bu ma amati boo bëggee daal lu ma neex li moom na njëkk tey na mujj tey melax mais eh, yow nu mu demee ni melax yow boo yow booy gën a gidee gidee gidee rey quoi booy wax naa balaa xool sa tenue bi changé ko dafa ëpp li dafa rëy kaay ma xamal la boo tuutee da ngay sol lu am jëm ndax ñu mën laa xool ak mbaxane municipal bi yow <laughs> baax na rek fi ngay teere xamoo ko nga ko xalaate nga ko xalaat baax na rek mais nag noo mujjee sa boy école fii booy boy école boy élève waaw <laughs> yow foo toll ak booy nga way jëm jaay xelu mag yow fils man fu ma toll ak booy nga may laaj hmm. booy yëpp am naa leen ñu sama ndey di wër ak ñoom fu ne non dangaa dof daway booy nee naa keroog lu ma la wax nee naa booy dan lay nax et puis wax ma loolu keroog gis naa oto pa tubaab xool 4 x bi el noonu mu nor de. oto pa tubaab. pa kii imam. Ah, waaw pa imam oto 4x4 waaw tubaab dama yab dama ceeb booy. yaa ngi dégg naay bi di wër ak ñoom di waane waane bi ni may. tourné el bi laa dóor ci miir. waaw booy doo kas nga xool ba ma dóor ne bi noonu dugal deuxième tóoj affaire bi ci kaw. Hmm. booy fii si dagg booy dagg mais instant bi yow gaañ. kon booy bu noonu ah. booy dañoo tiit mbaa duñ la créer affaire yooyu mën na oto bi grand bee ma ko may sama oto la maa moom lu ma neex laa ciy def. waaw xam naa bis bu dil bi kalaatee booy ah. bis bu dil bi kalaatee booy da ngay déménager ci koñ bi da ngay tuxu. waaye yow ay ngaaka lañ. waaye ay ngaaka lañ. si mënuñu àjji lenn. booy ay kii lañ de booy seen booy intellectuel lañ. man wax ma loolu sax mais booy. intellectuel yàlla lañ xaw ma intellectuel. Hmm. ca école ba la yàq. <laughs> mais wax lool sax booy. daanaka affaire yëpp mot na quoi chaque jour xoolal man la ñuy jox seen kay kay ci man la ñuy xool maa leen tojal lépp looy ree waaye wa fii sax ndax damaa xamul looy toj looy <laughs> toj nga yaxal yow école tëpp na ma rëfa dëba dàq nañ looy ree da nga ñàkk fayda quoi yow xool gis na booy ah man benn booy moomu sonno booy bi dafa ñaaw comme Elton bu la signé dëgg ji koy feeñ ba ñu yow xam ne gars waaw xam nga ku ñaaw kay kii gars ba nuroog Elton mënu ta ne jigéen bu koy xool kon da nga koy fëgg arrêté waaye nee naa ko xool temps yi naa bisab si ma yëgat ci moom laa koy njëkk testé te bu ma ko testé moom Sénégal ba Sénégal daj moo ci ciy la jaal booy defal naa meer bay sóor noonu xaw suba teel gii dafa bëgg yooyu trop. fii xam naa hmm? xaaral ma ne yeggaale ko. dégg booy yow li ci am moom yow loo ko am moom. yow toogal foofu man booy yëpp laay téye nga taxawaale. booy yow jàpp ci ay def paqe rek <laughs> paqe rek la arrangé gars yi. booy taay na booy <laughs> bii. Silen? Bonjour. Ça va Ça va. Ça va bien Ça va. Comment ça va Ça va, ça va bien. ça va. lu nga fekkoon feeñee si wetu école ñu yóbbu nga yóbbaale ñu kaas bi. Mm. ñoo la doon wan kaas bi quoi. wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg. yow daa fàtte grand bi. waaw wax nga dëgg ça va na ngeen def. ça va ça va bien sama bopp moo ko woon ne am fu mu nekk quoi. ça va na ngeen def nag. ça va bien. ça va yéen sañse ngeen ah. merci ah, mais keroog def ngeen lu rafet. non dama dama leen apprécier. parce que xale bu jigéen noonu lay def. Mm-hmm. nit ku ñëwee te xam nga bu teel a wax ak moom teel koo kii daal. mais ni ngeen kiiyee noonu dialogue kontaan naa si trop. adduna bi waaye ku la ne nii rek nga ne waa neex yu ba bëgg a dee. looloo tax ñu ne doon ñàkkal kersa. Mm-hmm. xam nga jigéen moom waroo oyof trop ba ku ñëw rek daal sa kaw affaire mm-hmm. yooyu. dëgg la looloo tax daal ñu wax ak yow noonu mais xam nga nekkuloon suñu coobare. Mm-hmm. parce que yow doo ko ñuy wàññi. Ah, seen fi dafa tàng yi. waaw suba si day tàng mais guddi gi day sedd. guddi gi day sedd guddi gi day sedd. li ma la wax ah, dëgg la dëgg la mais yéen da ngeen di yendu tey nga ni ngeen mel nii foog ngeen yëndu. ñi dañuy yëndu grand. Ah ah, ah ah waaw noonu lay demee ah. tey moom ñu nag yow ba ngoon. xoolal fi seen kër la looloñ joxoñ ma dagg. ndeysaan dafa baax parce que yow ma fi ma xam ne danga baax mooy keroog. Hmm. geste bi nga def daf ma touché. yow ñu lay yóbbu kaas bi rek. nga téye ñu may ñu xaalis bu bari. waaw ah, waxtaan bi kaf bi ah, réegi nag yéen yéen a ko moom. man daal ah, xaw ma lan laa lay wax distance boobu soriwul sax. waaw ba pare indiwaat ñu kon paas bu lañ ko doon téye. ba ñu yegg suñu école. Mhm. man daal instant yi xaw ma lan laa lay wax. ku baax rek ku koy def nit nit dafa bëgg ku ko yëg. Mhm. Mhm. yëg-yëg dafa am solo si. muy sàcc moo bëggul ku ko yëg. Mm-hmm. sàcc <laughs> parce que day booy kaay jënd kaay jënd yaa kaay jënd yaa. ñoom luñ bëgg. parce que jigéen ñi dañoo bëri bëgg bëgg de. ko ñu ko woon. dañuy jox ko rek lu fa fekk mu jëlee mais instant fas yi du ñu. comme d'habitude comme d'habitude comme yow comme d'habitude tamit xam naa ne doo añ ndax tàmmoo. Oh, mais garaaw demal demal. Eh, waaw waaw.

mais sama gis nga kër gi loolu ban genre peinture la xoolal ma lii. macha allah man ko macha allah maa ngi xoolal bi ma ñëwee ba léegi damay xoolal rek. waaye yow kii doo ko bàyyi ma géré ko. bàyyi na ko. loolu moom du lu ñuy wax sax du dama koy doo ma bàyyi ma def ko sax dama ko dama koy def. amul problème noo ko bëggee rek. yow kii man maa xam ni ma ko war a def. détourné ko kër gi sax mën na am nu muy demee ma jël ko moom ko. def ci sa tur waaw wow kër gi am na nu muy demee sax ma jël lépp. lu wara a mën la de kii moom détourné ko laaj xaalis la yor de macha gis nga yaram bi salon bi nag boo yaram bi xam dafa dund man dama jaaxle man maa koy doog gis waa Nadia tiitu leen nga dama lan ah, ndax yaa wujjee tiit man ayuma damaa xool kër gi ba trus uti naa sama faru taximaan bi Lamine yóbbu ma ki xamul lu ma ba sama biir di mel <laughs> man de kii xam naa ne moom dama koy jël moom loolu du li ñuy kii moom li ma namm ci moom sama projet ci moom laa ko xam naa ne kii moom su ma ko téyee damay tekki ba samay sët sëtaat. damaa jaaxle lu ne xoo damaa. ba añ ngeen ba suur rek. añ ngeen ba suur yow nag ba añ nga bu baax. yii man du ma ko yàq. yow moom gannaaw xam naa ne yow moom sama xarit ngay doon parce que bëgg. Mhm. non da ngeen a baax nag. waaye wuyu ma yow nga ne kii amul jabar amul doom. monsieur kii amul lenn. gën a célibataire bu bon la. ñu hmm? koy gisee nga na alal ju moom kese fi dëkk këram. ñii nag en général man lépp lu ma sol grave moo ma ko indi. lii xam ne original la. ah, ah yow kii nag baax na chemise bu rafet na sax di li nii hmm. moo gën a kii ci li may sol. bon ci su ma ko géré daal bu demee ñëw mun na ma indi ay yërwal ay bëdi sama leen ciy jox ngeen sax tel conteneur ngay ngay jaay waaw di ma ay conteneur bëdi di ma indi ay may sañse waaw gën a am nga ne kii amul jabaru sax tubaab xam nga tubaab bi dañuy soxla genre amu ko sax kii amul lenn kii soxlawul ñamu tubaab kii ñamu sénégalais rek li bëgg waaw dëgg la xanaa moom nee na moom sénégalais yaa ko yëngal moom nee na yooyu ko neex genre yi duñu am sensu jigéen jigéen bu baax te tubaab bi ne ak ne ak ñuy soxla genre yi moom la bëgg nit waaw mais yéen laa añu leen ah sa gan yi day añ man du may lekk nag mais da ngeen waroon a añ ça fait vingt ans nga gis Sénégal moom c'est normal. Mm-hmm. do habitué ci lek bi. do meuna a habitué wu. te fii ci lek dafa meuna a saf. trop yii saf trop ñoom lek lekk day lewet. dafay lewet day lewet. muy ma fi amul toilette dama bëgg dem changer sama. mais suma salle de bain. mais nag garab booy dellu doom fi bàyyi de. non da ngay dem. da ngay dem kan de ma yóbbu non togal na bay ma yóbbu ko. togal yow yaa ngi jënd tout récemment añ ah. bàyyi ko ma yóbbu non togal garaaw garaaw dafa baax bàyyi mu doxanduwaale. il est il est beau il est gentil. ñaar danaa la ko xamal dellu moom bu koy def du ma fi bàyyi. yaa am sa fulla yow ma fi bàyyi na la yóbbu ah. yow moom boo demee moom da am lu bari tubaab ngay am sa màggetu tubaab rek. teg tubaab ndax yow tubaab bi sa taay fin yi bëgg yow taay fin nga mais xale mais màggetu ah. tubaab yow tamit nag déedéet baax na utal màggetu tubaab yu dee nga doon alal ji yëpp kese waaw doon château te kër moom France moom ay milliards la fa hmm. waaw fexe nekk nekk nationalité français sax. waaw bàyyi bàyyi fi duma fi ñëw. moom ngay def yaa am sa fu. xanaa boo ko demee bu ñu fàtte. bàyyi sa yaay bàyyi sa ñëpp toog fa. non ma leen fàtte. waaw Nadia. Dabish moom bu fi génnee ba léegi. dama xam naa dafa bougé rek xaaral ma xool ko ba xam naa. xool ko ba mu xool ko ma ñëw léegi. xamti woon naa kii de maa ñaar kii sama tuñu di raf. soo la gën a tiit. ma yokku naa sama maquillage bi lay defar alalu fi faare. moo ma jaaxal <laughs> ki daal neena du changer ci picc añ bi moom rek la doon xol mu ngi charmer grand jaaytaan bama ma ki kii jikkoom neexuma. te mom sa dafa ñàkk fayda ndax grand jaaytaan du ñu am ñep xol ko man rek la doon xol dima ma tegal nag. ma gis lool naan ma añal di ma xool def ni ma yow gis ko gis ak grand jaaytaan man nag la doon xol mais dabish ni mel ñaaw na di moom grand jaaytaan nu mu ponkalee ki bu yegge ci dabish fuñu jëm ak nu mu woowee ah kii bëgg lu bax di. waaye nag xam na nag nga dabi tey daay baayam wax naa ko li ma koy wax fii teg ko fii ne ko kii maa koy jël moom nag muy jaas si suuf naan day teg di dil maa ko gën a bandi gisagul sax li ma koy waajal. ah yéen a ngi toog. yooyu toog di waxtaan. waaw ah, waxtaan leen de. dangaa génnoon gis nga leen. non gisuma ko xam naa dafa nekk ci toilette yi xam nga rek. dafa nekk ci toilette yi moom na dafa def ligne ak copain am dañuy nekk di woote rek mooy ligne yooyu nga xam ne. ah kon loolu yooyu la def mais moom fu mu laaj fu mu wéetee day nekk di wuy téléphone moo ne mu ci chaise anglaise bi di wuy téléphone. Ah. daa ah, mu tuutee noonu la dalee xel. bu moom yàgg na de. moom laay kii nii sax ma ñëw xoolaat ko ba xam nga xam rek. non ñun dem. nañ dem non xaar ko yéen fi am. mu ñu ah. dégg tax nga am na yeneen vapes yu ñuy dox. waaw coolul xaaral ma buux leen léegi kon moom bu ñëwee. ma indi ko. non garaaw kuy des ci kër gi.

nekk sama grand. eh boy, xool naa la ci gàllal alors nice. bi ngay wo maa ngi jël taxi. mais dama mujj wax gaañ bi bàyyi ko parce que dafa am benn booy bu may woo. xam nga mu ma neex ci nan nga def bi indi fi booy yi moo ma jaaxal. waaw dama toog gàlle booy woo ma téléphone ne ma tey fii lañ bëgg a yàddu. Mhm. ah ma indi leen ñu yàddu mhm. grand nga ci ban côté. indi ñu waaw ñuy taafin bi ne xam ma dafa suur affaire yooyu ne day dem toilette mhm. nga yóbbu ko garaaw ma yëg ci kaw gisuma la ma dugg sa néeg gisuma la ma fu ne ma dugg fa mhm. mënuma fexe ba gis la garaaw fa nekkoon ak booy bi yow tamit boo yow lan nga may ah, ci kër yaa ci kër gi nga may wër non ne ci kër gi non attends maa ngi woon ci kër gi taafin bi mu ne day dem ci toilette yi ma yóbbu ko suma salle de bain maa tëdd ci lal bi mu tëj bunt bi ah, mu ñëw daana mu yëg suma kaw parce que kenn du ko jiitu ci mbaram. gannaaw kon li nga bëgg a wax ne da nga karapi e booy modéré seen engagement. waaw ban modéré si ban carte appui. booy du ma su ma doon béyu ay carte appui. moo lay waxee. ne la moo tax ma sànni sama kele sànni sama tëni sànni sama lépp. loolu dëgg la bëgguma ñu discuter quand jëlal. mais ñaari ah. boo yooyu ku am yaram ki ak kii bi laay jéem a xool may kolo kolo mais taay fi moom jëlal bëgguma ñu discuter. weere nga de. non weere wu ma. weere nga kay grand. waaw yow mën nga maa bàyyi sama bagage rek na grand. ah bul bul bul yàq. amul problème amul problème ma yàq hmm. amul problème

mais boy europe la jugé nak wala jugé mo europe europe nga jugé non si de boy damay bayyi hein non ni boko continuer damay bayyi parce que ma ngi bëgg mer non do mer grand non si dina mer mais yang koy bëgg yak sama grand ak la ñu dëkk faw ñu laalé japp ci rek bu mer amul problème yaay sama grand ah, ni nga nekké won nga ko nekké ba légui continuer ni nga menon rek boko continuer ma ak yow duñu am ben problème duñu am problème am problème ciao amul problème légui ap ab na fi ñëwaat sa xamna ah di nga fi ñëwaat wa dina fi ñëwaat amul ben problème ciao jaajefa grand chaque semaine mun a devoir joxe exercice yoo xam ne kenn xamul na lañ koy defee xaw ma anglais la xaw ma chinois. xaw bi coppam dafa fuuy. man lii xaw ma fan rek lañ ko war a mën a dem tojee ci. nee na waa bi dafa daal damay xalaat est-ce que duñ dem sama copain boobu Aziz waaye su ma demee dina ma xas de. ko fan la dëkk faa gëj. yoof la dëkk yéen xam ngeen ko nettali naa la si sama histoire inde boobu. <laughs> yàgg yooyu nag naa dangaa ñeme fu sori trop fii ba yoof ak ay devoir man tey ne intérêt ma fooy bu dul ma dem ba fii ba yoof. ma ne programme devoir bi fii laa koy waaye gis nga nag matière yi nga xam ne ko yoof dëgg la ci nga mën a profité pour mën a kii de buñ ci mën a génnee de. man de duma xeeb benn naa ne alors naa suñu gis nga kii yow gannaaw da lakkale ku la ko waxul dala ragal. yow lii lan la non booy taasi loolu booy. y' a pas de toi da nga lakkale da nga soof lan la nii ah. ñu mboor fu ñu dem nga fekk ñu fa. ah mais booy su ma da leen arranger sax mais pas déranger. fekk ñu fa di wax rek mënoo ñoo ba. booy pardon faire voir. eh bàyyi sama kaye yow lii lan la. yow lii dañ ko <laughs> ma may ko yow ku lakkale ku soof nga. eh may booy eh. ah booy ni ngay rombee sama ak yow. non grand ku ñu woon sax ku mu weñ rakalo sant yàlla grand nice sant bu baax eh boo yaa may teggi nii de waaw ah, mais xam nga rek gisuma la xamewu ma la xam ak ni nga mel nii grand ah, dëgg la booy sinon xam nga nice ni waaw ah, mais si grand xam nga gisee ah dëgg la eh, mais devoir keroog génn nga ci waaw waaw mais xam nga rek bii moom boo xoolaatoon ma gën a loolu ah waaw noonu la booy foog nga des fois ngay débrouiller boo gisee xool boo gisulee sa grand rek uh-huh. des fois xoolal nga débrouiller mooy loolu quoi yàlla baax na grand daf mel ni yow loo xool rek mu sotti waaw noonu la booy fils rek ki devoir na waaw waaw devoir mais xam nañu def ah. te mhm. xool ceene ne moo ñëw ah. waaw ah. ah, mais kon ma dem ci booru pneu bi. waaw taxawal noonu maa ngi ñëw nga bañ maa fàtte ah. noonu rafet taj rek. ok. kon kii da nga koo xam. kii sama jantal booy la. ah bon waaye kii sama good booy la. kii rek suñ classe. Ah. moo fa nekk mooy classe classe bi nag kaay ma wax la aay la def day toj rek bu demee tableau bi day bind koñ ba koñ bu taabu surtout jour. ah mais xoolal moom lim lim lim ko jaral. moo leen jaralul yéen. moo gën a soxor na ci classe non booy xam nga rek dañ koy yor quoi moo tax. dafa gëm jàng moom loo tax dafa neex expliquer dama koy expliquer rek yoon woon ko yoon bi rek mu toj affaire yi quoi. Hmm. maay joxe cours particulier fee ne. fan ci. classe bee ne fee booyee fee taxaw quoi. ah bon TF. ok TF voilà man maa fay joxe ay cours particulier nii ko ah. parce que fii lundi mardi. waaw mercredi maa leen yor fii quoi man maa leen yor. mais je le douane ñoom dëggeen xam comme Cambérène 2 Nations Unies xam nga ba SCAT Urbam yor pas élèves quoi. voilà gis. quoi voilà non si mais zéro heure quoi ba trois heures a récupérer quoi xam mais ça école bien quoi Alain mais cest heure bu ngeen am jot quoi. dimanche dinañu neex trop. dimanche ban heure vers 18h 19h. non 18h.

waaw yor naa numéro kay. nga defati. amul dugal maa ngi bëgg la ko mooy fils maa ngi taxaw si kooku bi daan di fokk boobu léegi. ça va taw léegi boo ñëwee rek ci war ngay indi quoi. oh nice. nice. bon nag. waaw ça va maa ngi nii rek. waaw naka Siré booy. waaw c'était nga fa di métti rek booy. neex. ah booy neex mënul am fenn. waaw pourtant ma xool par exemple maa jaar foofu. mais gisuma la dugg waaw mais dugguma booy instant maa ngi kuuta gaañ mais booy gënu ay tuyoo booy moom lañ de. ci booy yow fi nga def ba jot ci booy yow. yow fi ngay xalaatee moo sori. waaw bàyyi li may wax am na ay nekk ay étudiants xooluñu ci booy yow nekkoo fa ah, étudiant nekkoo fa dara ci booy yooyu non booy mënoo leen gis parce que yéen a booy yéen a dëkk te booy yi xool bu ngeen dëkkee mënoo gis seen baaxaay mais sa mère laa daje léegi ni mu ne ma mu may tegal ne ñëw nga waaw si si léegi rek laay soog a gis nañ gisee de ah. waaw maa ngi nii rek daa bu fi ñëwee rek ngay ñëw bàyyi xale fàttal na la mais rek xoolal amu toogaa xam nga dama war a dem baali nga ay trois samay cousine daal ñoo ko moom booy dama bëgg nga toj ma toj <laughs> dëggal mooy jéem a kii xool naa ne ordinateur yi ñu leen yónnee moo tax ngay jéem a jàng wax ma loolu rek yow da nga xool ligne bi ni fii ak ordinateur yi ñox nga naan man sama niveau egg na fii ah, mais man gisuma gisuma ko de waaw xoolal nii ah ah lii moom booy li dépassé na la c'est boo ma ko waxee moom dinaa la mën a dégg quoi dóora mën tawaay mais nag euh, booy comme damay soog a yegg si te yaa ngi ñëw fekkoon maa nekk ci kay yi xam nga da nga may may temps quoi ma ma xool xam nga rek après dooral la ko quoi. waaw booy rakk naa ban may temps wax naa damay dem tey samay cousine la dañu xam nga amuñu ku leen jàppale. dooral ma ne ma yóbbu ko rek ñu taj. booy bàyyi sa toogaay def da ngay neex a waxal. bu ma boo ñëwee wax ak man ma ne la dama amul temps mais aw ma temps. booy rakk xamante nañu dégg nga li ma wax tojal ma lii ma daw dem xam nga baal ma dooral ma ko ma daw dem. da nga dëggal bopp léegi nag xam naa ne comme yow kenn mënu la wax loo def léegi xam nga noo ñuy def pour ñu mën a déggoo bañ xuloo léegi da ngay jéem a régler zëm xam nga. saa li ma mooy fii ah, mooy mooy loolu quoi yow doo fekk si yàlla naa dee quoi. déedéet bu fa dugg bu fa dugg booy xoolal régler zëm bi rek ñu nga caayan caayan bi xam nga. mën naan sa yaram tàng moom coono jóg mais xam nga lu ma lay tegal. Hmm. fexeel na ba bés def fa dégg nga. yow daal bul xam lu ma lay defal. yow daal yaa indi rek yaa bëgg. dama def mais bis bi dafa nice temps yaa ngi yëgalu man de. non fii eh, léeg-léeg maa ñëw dégg nga ah, mu soog ko Bonjour la classe. Bonjour. Alors, vous avez passé un bon week-end Oui. Maintenant, avant tout, j'ai remarqué quelque chose là. Enlevez-moi vos lunettes et vos casquettes là. Je ne veux pas avoir de lunettes et de casquettes. Allez, tout de suite. Lunettes et vos casquettes. Alors, euh, j'aimerais revenir sur un point avec vous. Parce que j'ai eu des échos comme quoi il y a un phénomène qui subsiste dans l'école. Il y a des personnes qui viennent assister à mon cours et qui ne sont pas élèves. Qui est le responsable Venez ici, le responsable. Eh, on n'a pas que ça à faire, faites vite. Vous êtes le responsable, hein Oui. Alors, dans la classe, je veux que vous me euh, dites les élèves ou les personnes qui viennent assister au cours et qui ne sont pas élèves dans, l'établissement. Si, tu connais la classe, n'est-ce pas Tu es le responsable Oui, bien sûr. Allez-y. Monsieur, le gars là. Qui ça C'est lui en capuchon là. Oui. Monsieur Monsieur, s'il vous plaît, venez ici. Je parle de vous, oui. Je vais me retirer. Alors, vous pouvez ah, disposer. Alors, comment vous allez euh, Ça va bien. Comment vous appelez euh, Je m'appelle Doudou. Doudou, Doudou comment euh, Doudou Faye. Hmm. Oui. Doudou, est-ce que vous, pouvez nous écrire la date, s'il vous plaît La date vous avez une Oui. Allez, écrivez-nous la date. C'est la, Oui, oui, la date. Ça, c'est le comble, hein? C'est le comble. Ok, donnez-nous la date. Ah! C'est le lundi 15 avril 2011. Ça, c'est le comble peut même pas écrire la date et qui se présente dans une classe. <laughs> Alors, tu ne peux pas écrire, hein? hein comme, ah, tu es gêné, ah, attends donc. Alors, quels sont les élèves qui doivent exposer Donnez-moi une feuille de, de votre exposé. Merci. Est-ce que vous pouvez lire pour la classe l'exposé que ma <laughs> non mais ça c'est le comble. Hmm? allez lisez lisez pour la classe. Euh, lisez lisez. Mais ça, c'est le comble. Voilà des élèves qui ne savent ni lire, ni écrire et qui se présentent devant une salle de classe. Non, mais donnez-moi ça. Allez, vous pouvez prendre la porte. Hmm? S'il vous plaît, vous prenez la porte. Vous n'avez pas votre place dans une salle de classe. Euh, euh, c'est Doudou, hein Doudou, quelle est la classe Ah, Dama, là, Doudou. Hmm, ah, merci Doudou. Doudou, demain. Attends, Doudou, Doudou, Kaya. Mais Doudou, il y a là, moi, une salle de classe, c'était le RF. ah xanaa bëgg jàng rek te sama papa mosuma dugal école moo tax sama xel mi dafa nekk si jàng rek ñu oh. jàng dafa ma neex trop C'est pathétique, hein mhm. Bon, ça c'est une bonne initiative. Donc, euh, est-ce que est-ce qu'on peut l'accepter dans la classe Oui. Allez, bah, euh, bon, allez, bah, tu vas prendre place. Maintenant, après on va suivre ton cas. Hein. C'est un ah. cas bien particulier. Allez, prenez place. Mais nous hein, devons quoi. Après on va voir les voies et moyens pour nous mener intégrer une classe, une salle de classe quoi. Adour, ah, ah, toi. <laughs> On va passer à ceux qui doit exposer. Le groupe euh, qui, va exposer, c'est, il s'agit du groupe de, Naboudiop euh, et de d'abord Aïcha, hein, c'est ça Allez, vous venez. Venez nous présenter votre exposé. Allez, présentez-nous votre, exposé, le travail que vous avez fait. bonjour chers camarades. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter euh, l'exposé concernant sur euh, la conscience et l'inconscience. Bon, comme vous le savez, l'exposé va porter euh, sur l'introduction à la conscience et l'inconscience, et le, grand ton concernant l'élucidation conceptuelle, en plus le grand 2, vous avez la conception phénoménologique. Et là, le grand 4, vous avez procès de la conscience par les maîtres du soupçon, c'est-à-dire Marx, Nietzsche et Freud, pour Ricoeur. Bon, d'abord, je vais laisser euh, mademoiselle Diop vous, lire l'introduction. Comme elle vient de vous, le, dire, nous, sommes, nous avons fait un travail sur le conscient et l'inconscient pour vous apporter quelques notions que vous ignorez ou bien que vous a échappé, pour vous apporter Concert Monsieur, s'il vous plaît, monsieur Doudou, s'il vous plaît. On parle pas de concert. on parle du conscient et de l'inconscient en philosophie. Monsieur Doudou, comment il nous poursuit, vous tous. comme ah, un élève. Ok Allez-y. الفنانين وخدمتي وصغيري رومان يبان على خارج يبان على خارج يا صوف من دم واي خدمتي وكي جاري وتمرة كل العبوب السنة دارهم لا مير بالله هو نو كناني باخنا بدل أجيب سيدو خارج لي مرام ريال Tem um panheiro. Panheiro para as

tey nga am ci moom sërël yaa ngi ci te ko naa sama loxo bi. xanaa nga xam nga yow nag damaa foog ne nit ko waaye doo nit. ah li si yow maa ngi ko sóoralu li la jox loxo bi moo tax ngay rëpp rëpp bi. te loo tax waaw may dalee loo am ci naa tey ma ko ci moom foofu man la ma dal di dalee nag yow tam maa yaakaar suñu la jëlee indi la ci école bi. mu nga jàng moo gën moo tax. yow nag yaa ngi soog wax li la naqari. muy lan. sama naan jàngu na parce que yow ah leen dong la naqari. bu mu toogee ci biir classe bi def devoir ak devoir bu mu munti doon lu mu saf-saf na jaar dëgg 18 am teg mbaa 20 léeg-léeg sax ñu plus que 5 te 8 50 sax ëpp na ci yow te duñ la plus 2 loolu dañ ma la naqari. Ah rek ma xamal la ne. nga jàng nga yaakaar ne 19 50 ñuy ak entreprise yëpp ci lu koy amee. xarañ rek. xarañ waaw. xanaa di tirise fi mu toll ak xaw di sànni professeur loolu rek lay dafa am ko benn affaire dafa am Nadia ni muy def ba am ko man ñaan ma yàlla amee ko nii xam ne maa ma la xoolal da ngay fexe mu feeñ ci yow. Ah. waaw ci la dëkk. ma chaque jour muy feeñ. yëre yu euh, 48 ah, xam nga xool moom la nekk naa mën a boole moom. booy dina baax 48 heures ah. booy bee ma boole moom moom boole yow ah léegi man amul prix naa jël lu bari jox la parce que suma booy la quoi. parce que. waaw mais booy. bërëb baa ngi nii garaan. mais fii rafet lay def. fii mooy laas doo mu a. doo ci sa yére doo ci sonn say loxo du ci dagg. te doo te doo te doo muy koor ah. du ma woo meeru Ndiago mu fóotal ma du ma ko yóbbu te ku la ci machine bi laa koy indi ñu laabal ma ma ñëw jëndee ko. moo ëpp jàmm garaan. yow daal après nga ñëw kii. yéen boo bëggee sangu fay. fi laa doon ma lan. ma far c'est cher. Eh, gisagoo leer moom nag ndeysaan nga ak am xam-xam. alors ça va si loo nekk. waaw sant ni rek. ça va na. naa la sant rek ça va. ça si jàmm ça eh, eh, ah say copine lañ ah. waaw voici Naja? Nadia. et elle c'est Aïcha. ah. oui kii mooy Ouz ki laa leen doon wax. Ouz yaa ngi nii. waaw maa ngi nii. li nga fañ sa rafet na. ah waaw yëpp nag fii la ah. kon fi daal mooy ñoo far fashion. waaw fii mooy ñoo far fashion. kontaan na. kii sañca rek lay def moom sañca rek laa fi gis. te man yii ñoo may bëggal. yii ah. waaw waaw yii moom am na. gis laa sama saay daa bëgg sañca nag. ah mu bëgg sañca. yii ñoo may bëggal yii laa bëgg gisagoo dara. yi iya, mooy sama saay sa xarit wala Victoria. Victoria Secret. lépp la am moom daal su ma dégg am na classe de. bàyyi dara. léegi baal ma baal rek ma dugg man man dama ah dañuy jangi de xaar ma xam. man dama dem xew de. Oh. Ma chérie, ça va ça va. comment vous allez. waaye li nga sañ si. ko. yaa dof de. yow mii kay yaa dof waaye nga fi ci moom doore. gis kontaan naa. maa ngi ma nekk seen yaay dama war a def waaw loolu moom am na moom. ku leen gis rek. xam ne yéen fa ngeen jóge mhm. dafa fa nekk ndax bu fa defante amul woon doo leen mel nii. loolu moom dëgg la. waxal. dama sonn sax ci liiwam nii ku mu def nii maman dama sonn ci muuraay gi. ba sonn boo ko waxul ma dindi ko. Ah. maa ngi bëgg a dee. deewagoo. ngay rey tàngaay bi ci biti gis ngeen ko. yow yëg nga ah, tàngaay ki yëgu tàngaay yaa. Ah? yow yëgoo tàngaay bi. yëgu ko. ndax def sa ni nga def ni lañ ni seet gis nga lay daw ndax jëxam ngay def fii sa kanam gi xaasam mu na Nek ci kanam duñu dé moy mhm. nek ci yow té man dama bëgg bo ñëwé fi bu gënë ñu xol la ndax ma sha allah tabar fakal ya nga sa place nga nek ci état te yi dañ ko wara xol chaque fois ma wax ko dama waxal sa xarit ñu ni séet eh le grand grand ya, ngi gën a yomb naa. sant yàlla grand. nu mu. naka bagage. sant tës tësi nag. ah naaj ni booy gën na xaw a gisee ah. oui grand yow kay da ngay jafe. depuis loor ba léegi. oui oui. mais koroog naka sa biir bi baa sonoon la. waaye booy ba nga dëgg dem booba sa biir bi daal dañu gis gis boobu léegi. booy keroog booy ah. yàlla ma dimbali. mais xool urgence lañ ma yóbbu. waaye xam nga paa bi moom dañ ma tegaloon même dañ ma war a opérer. mais mère bi dafa bañ quoi vraiment. feebar boobu moo ma sonal nii. mais grand loolu faj ko moo gën a wóor. mais xam nga rek na ma man loolu ma gën a sax. te benn yoon la comme korog moom ni mu def moom bu la ko dee def ak. loolu dëgg waaw gis nga. c'est vrai que mu la dëgg la joxaat ñu beneen bu saf. ah. oui beneen bu saf nii sax lañ ma jox kenn. tey leen joxaat beneen. oui bi ma la gisee kay grand dama sant yàlla sax pour rek nga jàppale ma ci mais yow bu matin midi soir nga bëgg jàppee ko nii rek. ne ko tous les jours. li nga sonn. instant maa ngi bëgg a dee xam naa ne moom fi ma mujjee mooy suivre seeni ay conseils. <laughs> su ma ñëw fii ma maa defar ba mu baax sañ sa ba mu bon. waaw xam nga yow sa papa li mu nekk imaam moo xam naa yii ngay def nga bëgg ko mais nag dégg sa ndigalu papa du dara ndax man fu mu nekk nii dama war a dem xew te maa ngi jëm ba Kër Massar te 9 jot na balaa 10h jot dama bëgg ngeen yegg fa ngeen jëm. Mhm. dem leen ngeen def ba mu baax ngeen ñoo ma xool leen. yaay ma jox ko meuf bi jox bi. Mhm. jox ko peeru goraas bi. waaye xale bi def la ñoo ma xool waaye. waaw sant nañ dool sant yàlla kay booy. alhamdulilah comme que feebar bee moom. yàlla dimbali woon na ma si. xool naa ko waaw. mais grand sa bonbon bi na doo ma di may ah. bonbon bi. waaw kii dafa seet nag ki nekkul bonbon yooyu de delo bi. waaw lii

même devoir bi la PC. PC la waaw moom la. yee may booy yaa ngi soo a dikk booy. day xool background. ni mu mënee xool. nga soo fi duggee. di ñëw fii dañ may xool di ma topp. di ma gunge ak seen bëd ba mu dugg seen buntu kër damay tit sax dama ne li ma si gën sax moy limay may def tubéy ak bëli té suma fi dugg damay mur damay né est-ce que duñu situation nek di dul wala tok di nettali affaire yooyu nañu ship ku nek am nga loy def ci suuf kenn lu jëntigu la waaw ku nekk ci guddi mom yaa ci bu bëggaati yaa fuuf nga xam naa ne tëm nga ne gaañ bi xamul dar mais bul japp loolu non gaay fi nga nek ku xamul dar du fa yegg ok mais rek xam luy cool yi ah hmm. man nag bon

devoir à rendre la comme boobu noonu. devoir à rendre. xam nga rek mooy rek seer nga quoi. bu boo déggee may laaj ay verre te yaa ay verre nga jox ma ko. c'est grand rey ma ko. Ah, waaw saa booy sàdd yi ñu tudd sàdd booy mooy loolu quoi. verre yi xam dama koy teg sama kaw nii ay la moo tax ma koy. ay collecteur la ay collecteur la. man. 02 laa sol la booy. non kii moom kii moom ay collecteur la quoi. ah oui. 02 laa sol mais booy. xaw ma fomm quoi parce que yéen seen bëri ak apollo yeeg yooyu mooy loolu. bu ah, saabu. non non moom bu dee ndox kese la gaañ doo jóg apollo de. dinaa ko eh, grand lan la. grand waaye booy bàyyi ma yow eh. uy sama ndey. grand mooy booy yaa da nga may rey quoi sa bët yëpp yàq nga ko. waaw ah, mais wax naa la la grand. waaye booy su ma rek ba ma sonal collecteur bàyyi ma yow eh. la ilaha illallah. grand yaa ngi sànni kayo bi sax. kii booy may booy rey nga ma nag. Ah, eh, grand baal toxoñ baal toxoñ. waay bàyyi ma bàyyi ma. yow daal booy fu ma jëmee ndox amu fa quoi keroog nii nga ma def may wax ak yo gaan sa waay. kii sama ndey yi eh, booy jàppal pax yi yaa ngi daanu toogal. non. wala yaa ngi rajax sa bagage boy boy xam nañu ne dama sa yoon dama sa yoon bàyyi ma xam foo taxaw sax doyul foo taxaw yow foo nekk maa ngi ni jàkkaarloo yow maa ngi ni jàkkaarloo demal bàyyi ma bàyyi ma demal demal sàmman rek amee grand baal toxoñ bi mais booy li booy booy man daal booy man zéro degré laay sol pourtant nga dem di ma jox ay collecteur nii waaw nee naa la ay collecteur la bi nga koy sol waaye booy xoolal collecteur rek zéro degré ci laa ci boole yem la xam lu lay xamal la booy demal soo yoon nga bàyyi ma toog nii ceene quoi xam naa yow fu ma jëm ak yow ndox amu fa demal rek booy amee ba kon nii nii booy yaa tal devoir man sa mbët yi laa tal boo talee devant daa fekk nga am dama la. waaw kele treize bi. booy li nga wax fi dara. bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko sax bàyyi ko. booy jinne waaw jox ma kele vidange bi foofu. gars yi xoolal rek. mënoon ñëw ñu yàggale ba pare nag. Ah, dafa soof moom benn liggéey xam du ko xam nga quoi. baaj baa ngi nii doo tee. booy maa ngi patron ci atelier def naa fi trois ans et demi xam nga. taxul xam dara nag yow it booy. Ah. patron bi sax yaa ko bi bàyyi rek booy. daa ngi lañ ko war a doxal. nee na. patron bi laa xoolaay. patron ko rek. xam naa naa gis promoteur ñu tëgal ko moog bombardier temps yi bon wër naa temps yi lu muy def din ba ci bu yenoo bombardier roy ko kii li mooy ne booy jolo lu ma jolof jolof yi dina nekk waa des arènes rek yoo rek ci mel loolu kase waaw bu nekkee oh, nag ma ne fils war naa wax ak yow rek ah, soog wax lu ma neex nag boo yooyu rek laa saw dégg seen i mbir boo yooyu wuu boo kay fu mu toll nii sant yàlla sant yàlla bu baax kay boo yëpp ñoo ngi sama loxo. yaa ngi nga mën nag. waaye booy ko yaa yàlla na tey boo ngi sama loxo boo bëggee mën naa jox nëmba kóolu booy yi. waaw kon man ma doon cuune man may lijjanti ngay lijjanti man nga may jox nëmba ko. ah mën naa koo lijjantee feneen. ah mais fekk yow yow booy tout tax nga quoi moo tax. man boo yëpp a ngi ci man boo yëpp maa ngi leen gérer naaj ma. eh bàyyi toppandoo yi waaye booy nan la ñuy nekkee ci man nekkaat ci yow yow danga nga na ah. nan laa tudd. yow yow booy jinne nga tudd booy. ah booy maa leen yeb ci oto di wër ak ñoom fu ne. <laughs> booy li nga wax dëgg la de. ah toogal foofu. waaw booy man naa xam nu may def man. wala man daal atelier bi moom mooy xaw a génne booy yi quoi booy yi xam mu ne ma wàcc damay jógee fi pare dem sangu gaale war a ñëwaat taxaw bunte kon xam loolu temps ñaare naa la xamal boo nee élève nga booy yi romb la gis la fii. waaw et puis patron daa bëri wax dafa may sonnal quoi une deux booy jinne booy melax booy melax tam ñu gis ma ko quoi. ñaar dinaa la xamal man moom damay bàyyi. damay bàyyi école tëj ma dellu si. naa la xamal ne école bu tëjee booy fa la affaire di gën a neexee booy. moom dinaa mën daw liggéey di dem di dem ay sorte ay sorte yooyu. booy na man ay ngor yi du ma yóbbu ak booy yi foofu de booy xam naa ma fa laa leen yóbbu. ah fee laa leen yóbbu nu mu tudd. Mbour Somone xaw ma côté boobu laa leen man de du ma dem Somone géeju Cambérène gii laa yem. Cambérène gii laa eh, yem eh géeju fi laa wooyee la ba fi laa wooyee. ba fa yóbbu mu ne maa ngi Somone. Somone booy fii ay xaji raas rek a fa ne temps yi Papa Diagne benn xaj a fa maat wuy ma yow mais sinon man booy duud dama ko gis a gis. non duudu booy duudooy ngaa ko dëgg dëgg dëgg. nu mu demee daa sàcc kele. man sàcc kele. Ah. duudu dil bi ñu doon teg fii ma ak yow naan booy booy ndekk de duudu mi ngi laaxatu di ñu dégg. duudu dem tege na ñun biir classe yi la ñu dugg dem bokk ci biir élèves yi de toog di jàng du jibe booy danga may nax kay yow loolu tricage la yow da booy bàyyi yow na ma ko doon tegal ci guddi yow na waxtaan bu neexee sa càkk bi yow nga mën a yow di nga gis duudu di nga ko gis démb la ma ko tegal ci ko kepp mu dugg biir classe dañ ko kepp di ko enquête xamul lu muy wax bi dafa kon li may toog yow chaque li ngay wala boo eh boo ma eh, booy jëfee. Ah. ana affaire bu ma dindi wala. dina naa eh, ko nga ubbi yow. Ah. ah ma xool. nga ne fii wax rek da ngay liggéey wala da nga wax liggéey moo la fi indi wala la ah? ma xool liggéey di vidéo ma xool. ana liggéey di vidéo. kalau sama va mudah. mu kalau lu nice. ça va nii. jël nga fekk. waaw jël naa ko tey de gis nga. ça tombe si sax man mi sax jël naa fekk quoi. ah bon. mais nawet li fan la nag booy. maa ngi sa ginnaaw maa ngi topp sa ginnaaw. ay bu ma nax waay rek. doon ndax du ma wax. ah dëgg la. mais xam nga man comme 31 décembre bi jour anniversaire quoi. ah bon ah loolu war naa neex nag. waaw bon day toj booy. kon <laughs> de war nga koo feete nag. ah nu ma koy feete bu dee moo tax xam nga rek moom. Hmm? boobu ba léegi maa ngi la doon chercher xam nga pour gis la. expliquer la tegal la action bi quoi. nga xam sama maman États-Unis la ne te moom bii mooy sama vingtième année quoi moo tax sama maman war a ñëw passé fii anniversaire beeg yooyu quoi États-Unis lay jógee noonu. kon de vingt ans nga am. waaw ah, ok vingt ans la am nii quoi xam nga. voilà léegi sama maman comme que day ñëw. te mhm. moom man sama papa dafa may tere pour ma gérer ci booy yeeg yooyu quoi xam nga moo tax day mu indi ma fii sama kër tata fii. Mhm. voilà léegi comme que amul booy bu ma dundal. moo mhm. comme sama jour anniversaire bon damay ut benn cavalière boo xam ne bon moom war a mën a accompagner quoi te bon xool naa école ba école bi daj gis naa ni su ma la bàyyee gis quoi et puis li ngay yëgal xam nga ak nice bi nga rafet ak yooyu moo tax quoi man yow laa war a mën a àndal parce que fu ma dem fu ne ànd ak yow doo ma gàccee et puis da nga neex a xool quoi macha allah yow. moo tax ma lay tegal na xam. bëggoon nga ànd ak man waaw non dama bëgg. may dal. xam suñu fet mu neex. man de instant bi da ma flatté parce xam nga élèves yi nañ fi macha allah xale jigéen ñi mooy loolu nga dem choisir ma ci. kon du def la. oui. sama grand. ça ça va toogal. sama grand yaay daan naan toog non non booy toog fii. weer laa toog di wër lii mënuma ko am. mais bul toog fii fii dafa kii. non brave fauteuil kenn du ci toog. xoolal toogal ne. bëggoon waxtaan bi xumb rek non salle bi yaatu na quand même. bëgg waxtaan bi xumb rek. booy yow dafa mel ni dama xamoon nii ngay sol ah. <laughs> gis nga da sol dafa rafet. xool day gisee. dëgg la ça nag.

et puis dama bëgg nga choisir lieu boo xam ne maa ngi ñu mën a dem xam nga ñoo dem fi ñuy passé bi maa ngi ñu toog foo xam ne dañuy œuvre nice sama nga goûter lu neex pour mën a dem fee gën a mën a déggoo quoi et puis jël quelque de danse pour bu ñu fee xam nga mu mën a mat quoi xam nga man ne boo tuutee waroo xool lu tuutee rek nga cay dem dama bëgg lieu bu luxe mbaa ma la waxee doo daw rek ñàkk laa xam a tax may wax. waaw mais xool ma rek. gis naa la gis. bu may rëbb. mbaa du sama kuur laa yor damay dóore. wala rey ma. <laughs> booba may rey wala seetaan yu ndaw yow moom <laughs> booy toj nga fi booy tis. les ambassades comme mama moko mom sa xel la daj kon. hein non boy yow quoi boy a ça va. ça va non un hein. parce que la dafa rek. instant fait nga dama nga ne hein. non du minutes rek. mais boy dama fekk boy ci service hein. ah, même pas 5 minutes booy laa ti dérange dama nga taxaw maa ngi. man yàkkamti ma. amul njëriñ de. non ah, loolu nga. waaw ngi ñëw dégg nga ok. booy nuyu nga ma sànq bi nga taxawee jar nga ma nuyu xalaat si naka maa ngi irifis bi ceene doo am nooy def sax bàyyi ma bon ak fii maa ngi dama irifis bi non tout sauf ça

yaa ngi 1000 francs Garsamire rek laa yor moom laa war a passé demul jënd si boisson. si laa bëgg a passé. amul problème boo ñëwee ma remboursé la mais boo jënd bul jënd ci bitigu naar bi ah. ah. boisson du sedd. dañuy dem euh, station bi. jéggi tali waaw nga jënd foofu boisson ah. waaw coolu mooy gën a sedd. coolu léegi léegi waaw waaw. allez. xam nga rek bi ñuy jël fête léegi. benn devoir boo xam nga retour des fêtes dañ andiwaat ma la doon wër nag fekk la fii ma ne naa la ko woon pour su may ñëwaat xam rek fekk ma réglé ko. waaw oh, su ma booy yow xanaa jëloo fête n'est-ce pas jël nga fête. waaw jël naa fête. jël nga fête n'est-ce pas. waaw jël nga fête. waaw booy man dama ni damaa jël fête booy. fête xam lu jiba nga dem préparer sa Noël koy passé rek passé bu neex ma ni nga bàyyi ma dem passé réveillon bu neex booy maag yow xam kay da bàyyi. ba retour des classes xam nga fi ñu doon fekkante foofu ci banc ba amul problème ñu fekkante foofu moo tojoo la ko. am sekk dama bëgg xam boo xooloon nii xam après su ma ñëwee dama ñëw dugam mu ko booy jàppale ma waaye booy s'il te plaît yow dama fekk ma taxaw kenn kay jàppale moo benn instant demal demal ah. waaw am na ok bonne fête ah. ok waaye eh, booy booy booy booy booy booy an li fi taxawoo. kooku gel bi jaar nii am na moom. mais baa xam nga ne yow yaa tax mu dem. man non gannaaw waxal leneen. non booy su ma yow yow yow est ce que yow man nàmp nga yow nàmp nga lu doy yow. ay deux ans laa moo tax nga con quoi. même yaa ma fekk ak booy bi nga ñëw di taxaw devant booy bi naan ma ay dama soxla. léegi école moo ñu boole ma ak yow ah. demal sa yoon ma dem sama yoon maa ak yow dara. ah mais grand yaa ngi bi ñu doon daje bu fa sax toog. am na grand foofu banc école bi école bi la nga seeti feneen banc yi bëri na douze banc moo fi ne nga dem seeti beneen banc toog foofu. mais pas bi ma doon toog lii rek moo tax ngay waxee man ni waay da nga am sens dama la war a jaal. waaye man bu ma amul woon ma seet def ci yow de. grand boo dalee sama kaw xam ne ñàkkuma njëriñ de. dëgg la waaw. waay baay boo dalee ah, sama kaw dama rek boo woowee dellu ma nga jaar fa. foofu laay ñëw toujours. moo oh, booy moo xool. yaa ngi boo xamante ni. heure boo ko indilee kay tey mu ne la biir suba vert gannaaw suba gel zaar yi xamuñu dara. quoi eh, Sara. Ah, naka la sant. waaw maa la gis ngay wax nii rek. waay wax nii. gaayen bii nii gaayen bii nii quoi ki nga dajal nii. ah ma dajal léegi nii. kii ken xamul lan la ko boo indilee kay tey mu ne la biir suba vert gannaaw suba gel tey ay affaire di wax chaque jour muy wax may. non defal naa defal naa xamoo gaayen bi. waay ci école bi fii nii daje mu nekk. élève TF xam nga faral di dajal lélé mo am lu may défal xam nga mu bëgg ñëw bëgg taxaw sama digg bop quoi. yow ku réne gaam bi di mécanicien nga naan ma ay TF. oui ma yow na da ngay fekk nit am problème tang di expliquer nga koy ay waxi mécanicien wala dara quoi. ki du élève ki mécanicien la bo kay nga koy jox sa exi nga ne ko tojal tojulul la dara. bi lo sanseur la jëmon ni. ndax lan. non da am lu muy lijjanti maam moom. mais fédi fan fédi sa genre yow ko talboy man dem gàll jéem a carrière moo ne sama bopp mais pas ay feet quoi. <laughs> yaa tal de man dem ngi koy def. ngeen à l'aise fii rek nga tëj buntu la yow tamit. da nga tëj buntu la da nga ëppal ah waaye yow. waaw ana booy bi dara. non doo ma ko parce que dafa romb. Ah, kon ça veut dire que ci man confiance. booy bi dem na taxawal nii. booy bi dem na. dara loo wax booy ba mu dem yow tamit. danga nga naan loo fi wax damay iri damay kii damay kii ba booy bi mer suñu version la dégg moo tax mu dem. non waaye waaw seen moom ma dab. non warut seen yóbbaale la. waaye naka laay dawee ci mbedd bi di yor di yor ay boissons. keneen rek jàpp damay génn après ah. coolul coolul boo ma gisul nga naan sorry, for some? Nyoka mefusori walinya kefusori Limagana metingane sidek Ware dansa We all, Oh i Am sorry, for some? yalala Nyaki yalala Ame fusori walinya kefusori Limagana metingane dance a dansa dole Wio Oh my bad kan deluhan man Lor matutina yang silingan san Tere un maidan dani bore sisa Kula masi uma don bide Asanya magari ni aksa upang Yene ne klebara maki funan Lodi matinga kan iban majak Ikme uje mota ni muje Ikme they are the lucky na my problem My game they game game bagi them Jema yang usah kena sunyi man Wala mga saku kata pikir mana dah Ludur dan telur deh Sukar nutuk kata refe Talu mati dapat tong hiru kenen Damai kumbat tak luken saksi kisah tulenen Kumtai dunia lene Eh Now I'm in the